mën nga am 85 mën nga am 70 kay koy seeru senegal Sénégal mo mel non legui marchandise bi yep mo seer sa plus pas ñong koy jënd ñeenti junni bi paas Mali bi bu senegal bi di 11000. waaw lu tax ngeen di pas Senegal Sénégal ngeen di jënd ripaas Mali bi. ah ripaas Sénégal Senegal, la ñuy jënd mais normalement dañu waroon am bi boo bo xamni du ag fofu ñun gouvernement bi dimbali wuñ parce que ça ah yéñ ni koku du yoon té ñun ñoo am ci suñu stock 5 suñu xaalis mu ngi ci banque bi nañu génnal xaalis bi jëndal ñu ripaas mooy yoon magasin yaa ngi nii am nañu jafe-jafe ripaas am nañu jafe-jafe courant te kooku du yoon te ñun Kédougou moo tax ñuy liggéey région Kédougou ku nekk nga mën a am xar nga yóbbu sa kër mais ngay jënd saabu ripaas yooyu nga jël oto hijra quatre cent mille nga boole koog di pass saaku vingt mille kooku yomb gouvernement moo fàtte éleveur parce que ku toog gouvernement bi moo la fi toog eh, ah jàppale wuñu saaku vingt mille boo toogee fii digg jël ñu en face banque ñu war a jënd la ripaas eh, jënduñu ripaas kooku du benn yoon ñi nga xamante ni ñooñu jiite féete ñoo gouvernement bi ñun moom la ñuy jooyto eh, te ñun région Kédougou bi moo ñu soxal parce que nit ki fi nga nek di fi tet bo sañon bo fi nekkee ku képp ku ci nek nga am sa xar te fekk doo sonn waaye saa pour passe léegi onze mille di passe ka normalement ko ko bo ci ko ge jëndal war mo ñaar ni xar la nga koy bindal suñu courant bi démb sama xar fi la ko courant bi maat bëkk démb courant bi bi day fali ben xar te yëpp problème gouvernement bi gouvernement bi dafa war mairie war na bu sambu tabaski djubse ñu ñëw ay saytu oh, oh, dara oh, lan ngeen le ak lan ngeen manqué ñu ne leen nangam ak nangam moo manqué parce que seen njaboot lañu ñooñu yilif courant tamit amul nga ne. courant bi am na depuis fi aji defaloon nañu courant mosuñu manqué courant waaye bii moom fii fii fiir ne màggat nañu man démb dama mujj jënd fi ay làmp ma def fi courant bi démb yi ba tey tàkkul xam nga kooku du yoon région Sénégal foo ci dem daral boo ñëw mairie day leen di ñëw saytu leen laaj leen seen i jafe-jafe ñu defaral waaw ndox moom am nañu am nañu douche boobu ñoo defar suñu bopp am ndox yëpp. ci wàllum kaarange nag sécurité. wàllu kaarange bi police moom wax dëgg yàlla ñoom def nañ seen devoir parce que dañ fi ñëw bokk démb muy ay faal woo na dama dem ci moom mu yónni fi ay xelam guddi dañuy surveiller fii police kay moom jàmbaar lañ.